jërëjëf bàkk ba jib na générique ba départ na jàngat làmb tàmbali na mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fu waaye mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey safa wasaare làmb ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci ànd bu rafet bi nga xamante ni yéen a ngi koy ànd ak wasaare làmb mbokk yi ku ne xam na ni diggante samedi ak dimanche dafa nekkoon semaine boo xamante ni vraiment ñaari jour yooyu jouru làmb la làmb ji njëkk li traditionnel la association Euh, wala fans club Boucar Ndour ñoo ko tëggoon fële ca dëkk ba faa dimbali ma ci dëkk ba faa jaxaaw siin jërëjëf faa euh, jaxaaw siin la ñu tëggoon mise bi ñu def ko un million vraiment gis nañ fa ambiance gis nañ fa cosaan mais gis nañ final boo xamante ne final bu neex la mbokk yi dañuy dem wan leen lépp loo xamante ne jot na fa xew dellu si waat ci plateau bi ay ci ñu dem Rambo Rambo arbi fay amba la ilaha illallah eh zay abar di daan doxo arbi bi sub la waat na Moustapha Faye Joral ak ñoom ñaare ngi noonu Biram Mbissine ak Moustapha Faye Joral ndaysaan combat bi mënul yomb ndaysaan noonu gàtt na ko daw na jëli ko Birame Mbissine na ko mbombo daan na ko gàtt na daan na ko daan na ko Birame Mbissine daan na suuf Fara ak Ablaye Deme Fara moo la féete ndijoor Ablaye moo la féete ba bañ na Fara bañ na jaxabal na ko bañ na daan na ko laa ilaaha illallaah ee Birame Mbissine moo la féete ndijoor Géant Bargny moo la féete càmmoñ demi-finale mbokk yi jël na ko Géant bañ na Géant du jeex njool lu mu def ni lu muy àtte lu xaw arbitre lu mu def bisimilah na final baa ngi noonu. monument Ndianda ak Assane. moo féetee ginnaaw ngemboo ngemb lu vert li. daw na jëli ko daan nañ ko. monument daan na Assane. monument daan na Assane. arbitre bi na mbokk yi baa ngi noonu. dox ci diggante Ablaye Ndong. Ndeysaan ak Diatta ak Géant Bargny. Ablaye Ndong daw na Zeya jëli na ko mooy njool mi ndaysaan mbokk yi Zeya bu barñi ak Ablaye ndaysaan arbitre nag du ñu toog takk na daan na ko daan na daan na ko yi gis ngeen final boobu doxoon ci diggante Zeya bu barñi ak Ablaye Ndour mu nekk final boo xamante ne vraiment Zeya wanewaat na boppam ci làmb Zeya bu barñi wane na bëre wane na doole wane na am fulla ci li muy def jël na final bi ba dem kenn mënul sax xam ni Géant moo jël final bi ndax lan ba mu ko jëlee dafa wane ni suma bët du ci fii ñii laa ko tegoon xëy na bëggoon na dajeek ponkal yi nga xamante ne ñoom lañu miin ci wàllu li traditionnel ngir mu jàmmaarloog ñoom waaye nag ca dimaas bi dafa am ñaari journée yoo xamante ni Kajoor production moo ñu woo kenn ki di Bawol production njiital ga di Assane Ndiaye mbokk yi stade Jom Iba Mar la woon grand combat bi doxoon ci diggante Youssou nduur ak mbay Diouf waaye bari na ay combat yoo xamante ne neex na ambiance ba bari na dañuy dem stade Jom Iba Mar wan leen combat yi euh, li nga xamante ne jot na fa xew ci ambiance su ko defee ñu ñëw ci combat spécial bi mbokk yi dellu si waat plateau bi ay ca ñu dem.

dem ñaan yi. wóo combat amateur la. combat délégataire la. combat boobu est-ce que du. Sane muy xeex ñoom ñaar. combat boobu Rio. combat boobu mën na doon la waaye mën nañu. Sane Rio Tente. Rio Tente. songu na ko songu na ko. am na ni Tente daan na ko. Tente Cheikh Diaw a ngi doonu. Tente daan na ko am na lu muy wax Cheikh Diaw kot so. waaw Tente daan na ko. Cheikh Diaw mooy kot si Tente. waaw mooy kot si Tente. waaye nga ne quatrième combat de la soirée diggante Bébé Saloum at Mbaye Feugeula. soirée mbot mi ba du la mbot. mu ngi koy yokk suuf. Saan Mbaye Feugeula. tegal na ko seen sukor bi na ko daan na ko daan na ko daan na ko daan na ko. Mbaye Feugeuleu daan na ko Mbaye Feugeuleu daan na Bébé Saloum abi sifflé na mu wax ak ñoom ni lamb nangu ak lamb bañ ndeysaan ne ko ne ko ama daan na ko ama daan na ko doole doole doole ama daan na Bécaye doole ay waay Bécaye abi sifflé na combat bi dox ci diggante Libidor numéro 2 nga xamante ni mooy Boy Maar Maar Libidor Boy Maar dóor na léegi dóoraat ñoo ngay xeex dóorante nañu ñoo ngay xeex moo ngi koy koy def da koy daan da koy daan na Boy Maar Boy Maar Fils de Tyson Boy Diouf fi de Tyson Boy Diouf jël da koy jël da koy fàq na ko waaw <laughs> Boy Diouf fàq na ko vite eh, fait bien fait da koo fàq. Toubacouta à droite Malem Niani à gauche Malem takk na ko Malem Niani takk na Toubacouta da koy daan Toubacouta na Malem Niani waaw Fadel Diop alawaat na ko mu bañ jox koy daan kaye daan na Otel kaye daan na Otel Dior mbokk yi gis ngeen li fa jot a xew yépp gis ngeen combat carrière bu bawal Euh, ak xale bi euh, ndeysaan hôtel Dior ñoom ñaar ñu bëri ci combat boo xamante ni combat bu rëy la combat bu neex la waaye carrière vraiment bàyyi leen ko xel ci làmb am na corpulence bi am na jëmm ji am na taay bi faw mbër bu am yenn corpulence yi buy bëre ngeen koy wax muy sedd adversaire bi cër ndax tey boo jàppee champion bu mel ni hôtel Dior bëgg a jeexal combat bi kutoo kut te moom buggul mu jeex pour nga daan ko du yomb. daan nga ko nag zongale nga ko bu rëy daan ko ñu lay félicité bu baax a baax a baax mbokk yi di félicité euh, xale bi Toubacouta nga xamante ni moom ak Malem Niani ñoo doon laale Malem ñaani wane na boppam ci xeex. ci jom ci fulla ci fayda waaye ñaari ndamay dugg benn ay génn benn bi génn yàlla suñ borom moo dogal ni Toubacouta mooy am ndam ñu koy félicité waat bu baax di ko wax ni lii la ñuy séentu ci yow Toubacouta yaakaar naa ne bu ñu nee buuru Saalum Toubacouta la ñu koy wax tey làmb li traditionnel wane nga ci sa bopp ba mënatoo cee wane lenn loo xamante ni wane woo ko ci woon jot na nga ñëw ci bëre bi dëggal sa bopp bëreeg say morom ndax bari ngay adversaire ci bëre dóor bi ñoo xam ne mën ngaa bëre ñoom taay bi macha allah am nga bëre bi xeex bi ngay gën a defaraat boo bëggee bokk ci làmb ndax yaakaar naa surtout bëre dóor dafa laaj dóor pour am bunt ku yi nga recevoir ci malam ñaani boo dajeeg beneen adversaire bu dul malam ñaani ngeen tolloo même corpulence bi ragal naa difficulté bu baree bare bari di ko am ci làmb mbokk yi noonu la ñuy def dem ci grand combat bi dox ci diggante yu Ndour bu école de lutte Balla Gaye ak mbay Diouf mbokk yi su ko defee ñu dellu si waat bi ay ca ñu dem. dimanche 22 mai il est 19h34 arbitre bi sifflé na Youssou Ndour Mbaye Diouf Bawal Youssou Ndour école de lutte Balla Gaye ñoo koy demee wet Youssou Ndour à gauche Mbaye Diouf à droite Youssou Ndour teg na pied gauche. Mbaye Diouf teg pied droit Youssou Ndour sëgg na tibb ci suuf si Youssou Ndour da ko bëgg a jàpp jàpp na ci ngemb la Youssou Ndour jàpp na ci ngemb la lu ko bëgg a am na benn loxo ci ngemb da ko bëgg a fàq wala lu taxabal loxo da koy daan vite fait bien fait taxabal loxo mu daanu Youssou Ndour doole yemul Youssou Ndour daan na mbokk yi gis ngeen combat bi dox ci diggante Youssou nduur ak euh, mbay juuf félicitation bu Youssou bi ngay jógee ci làmb bi mujj da ñàkk yaa caatu yoof arène nationale mu dóor la nga daanu sa combat bi danga ñëw wanewaat sa bopp rectifier erreur bi nga amoon ci caatu yoof Mbaye Diouf ci yow lañuy ñëw mbay vraiment man dama jàpp ni bi ngay jël Youssou Ndour fan nga tegoon jël bi bëgg ngaa bëre gëj ngaa bëre waaye amoon nga ay adversaires yi ci làmb ku dul Youssou Ndour yaakaar naa ne bi ngay jël Youssou Ndour ñu bari ci làmb ja ba simmeeku amee rek ñu ci bari ci analysateur làmb yi xam nañ ni nee nañ lii du combat ndax de un da doon bëre xale bëre xale bu am doole bële xale bu am ginnaaw bëre xale boo xamante ni dafa nekk ci yoon tey combat bi lu munoon xew Youssou Ndour du def erreur ci làmb ci ngeen bëre mu jaay la doole nga ko doon jaay expérience liñ naan l'expérience face à la jeunesse waaye Youssou Ndour wane na boppam daal na jël bu amul benn werante ñuy félicité waat bu baax Youssou ndur di ko wax ni sa làmb sa yoonu làmb ubbeeku na ndax boo bëreeg mbay juuf mi bëreeg Balla Gaye mi bëreeg Baye Mandione mi bëreeg ay ndaanaan nga bëreeg moom daan ko bokk nga ci làmb ndax mbay juuf rek la Balla gay daan mbay Diouf moomu nga daan Mbaye Diouf boobu moo daan Baye Mandione Mbaye Diouf moomu nga daan benn mbay Diouf bi amul benn différence du ay Mbaye Diouf bu nekkoon xale du mbay Diouf bu nekk mag du Mbaye Diouf parce que mbay Diouf ba léegi jeune la xale la mun naa amaat lu ne ci làmb na entraîné ñëwaat mbokk yi noonu lañuy def rek jëm ci journée Kajoor production bi grand combat bi doxoon ci diggante Mama Lamine ak Garga 2 mbokk yi combat bi ñu doon xaar yàlla suñu borom dogal ni làmb jooju amut waaye dañuy dem arène nationale war na lépp loo xamante ne xew na fa ci ambiance ci cosaan su ko defee ñu dellu siwaat ci plateau bi ay ca ñu dem diggante si Sina ak Libidor ba tey dara xewagul. waram otu baale ndeysaan ak Fatou Faye yaay Fall tik tik ay eh, jël na ko daan na ko jeex na bi mooy ñaari yoon action bi di am. Ndiarga 2 RTS combat baa ngi noonu Ndiarga Lo RTS ma ngay dóor ma ngay dóor RTS a ngay dóor ma ngay dóor caxla daan na ko RTS daan na bàyyi jàmbur waa RTS lu muy def nii laay laay la laa doroon jéggi ndaysaan Mbaye Diaw doomu Souleymane Diaw la ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar loo wax ci ñaari xale yi. waaw Maka Dola ak euh, Mbaye Diaw. ndeysaan na nga noonu. ña ngay dóor Mbaye Diaw ngay dóor. ma ngay dóor Mbaye Diaw ngay dóor. Mbaye Diaw ngay dóor. Michael Mbaye Diaw fay na. la xeex ba métti na. xeex ba métti na plaqué na ko. tegal na ko 16. Mbaye Diaw tax na daan na ko. laa ilaaha illallah eh. Mbaye Sow dandum arbitre bi sifflé na mbokk ñoom ñaare ngi noonu ndeysaan ah xam nga ko daan daa di gis jël bu yaa wax lool ñoom ñaar kay ku daan sa morom jël daan kon arbitre bi sifflé na ba tey yaa ngi leewaatoo jinne bu ndaw ngéem bu noir Fils de na jinne daw na jël ko Fils jinne bu ndaw daan na laa ilaaha illallah jinne daan na ko jinne jinne la moo la woon ginnaaw ngemboo ngemb lu weex li Matar Ndiaye noo def ba xam mbir yëpp booy suusu nag nee na léegi Abou Ndiassé numéro deux la mm. ma lay wax nii gis nga loolu lay liggéey fu mu toll nii xoolal combat bi gis loolu lay liggéey jeex na li ma la jëm ñoom ñaar dépon attention attention gis nga Soussoukane doomu Yoff li ma la waxoon nii. dox ci diggante yi la ak teq daan. Eh, teq jël jël moo xaw a ëpp volume. Youssou doole. gis nga teq jël du mën a am sens. gis nga. du mën a lool. du ko doole. daa mel ni gis. arbitre bi dox ci diggante. Ndeysaan bébé bébé Balla ak toujours pare. toujours pare moom nga jàkkaar lool mooy njool mi Bébé Balla moo tent bopp bi ndaysaan toujours pare fii la mujjee bëre dëgët la amoon digg dama ma ca pare laa Bébé Balla ndam lu rëy la mujjee am fii ndaysaan lamba gi noonu Zarko daw na pare door na ko Bébé Balla door na ko daan na ko Bébé door na ko mu kaawoo daan na Bébé Balla daan na ko. mbokk yi gis ngeen combat spécial bi dox ci diggante Bébé la ak toujours pare Bébé Balla félicitation mbokk yi Bébé bàyyi leen ko xel ci làmb xale la boo xamante ne vraiment mu ngi def ay preuve ci làmb mu ngi wane boppam Bébé Balla mosuma gis combat boo xamante ne da koy bëre te du daan jël bu rëy combat yi mu bëre yëpp daan ay jël yu rëy la daan. maa bëreeg caatu Daouda Fall defet bi mu njëkk am ci làmb maa ko ci teg doy na toujours prêt defet bi deuxième defet bi mu njëkk am ci làmb yaa ko ci teg te danga ko dóor mu daanu bàyyi leen ko xel ci làmb ñi nga xamante ni ñoo dëkk ak moom pikin dañ ko gën a jàppale Bébé Balla la ci làmb xale la boo xam ne am na jom am na fulla mën na li muy def toujours prêt dellu siwaatal ci làmb ñëwal ci làmb nga bokk gis naa sax nga daanu ne da ngay bàyyi bul bàyyi làmb da laa gàttandu ci gàttandu bu neex nga def huit komba daanuwa benn yoon am huit victoire sa neuvième combat nga daanu sa dixième combat nga daanu loolu làmb la entraîné waatal xale nga àndaat ak say mbokk ñu waat ci làmb mun ngaa am lu ne ci làmb ñu ngi lay encouragé bu baax a baax a baax mbokki dañuy dem ci diggante Mamor ak Siteu bu Saalum su ko defee ñu dellu si waat ci plateau bi ay ca ñu dem ca mbokk yi wuro wa dem na këng wax mag dem daj taali dagg war mbaam lu waay doon jaay léegi mu lamb ndaysaan Mamor bu Faas ak Cité bu Saalum ndaysaan mbokk yi Cité bu Saalum moom nga jàkkaar lool Mamor moo la woon ginnaaw ndaysaan mbokk yi ñu ngi ci dimanche 22 mars wala mai wala juin mai ndaysaan sama bopp bi nekk 22 mai 2022 il est ndeysaan vingt heures dix minutes maam Mor moo la woon ginnaaw ndeysaan Siteu moom nga jàkkaar lool mbokk yi ñoom ñaar ngi noonu ñoo war a bëre combat spécial bi waaye ñooy mujjee bëre grand combat bi ndeysaan Mama Lamine Garga doo mujjee wu la am maam Mor coggaas na Siteu fay na dañuy xeex ñoom ñaar dañuy xeex si ak maam Mor Mame Mor Siteu ndaysaan Siteu bu Saalum ak Mame Mor dafa nar a dem waaye Siteu da koy xaar Mame Mor féete la càmm Siteu féete ndijoor ñoom ñaar ñu ngi noonu di lewaatoo Mame jiital tànk ndijoor Siteu jiital tànk ndijoor ñoom ñaar ku ci nekk fausse garde nga jiital Mame Mor dóor na ndaysaan dañuy doo ko bëre Siteu door na Mamor jëli na ko daan na ko Mamor daan na Siteu Siteu door na ko Mamor waaw waaw encouragé bu baax Siteu bu Saalum Siteu mbër da ngay moytu fooram Maam Mor ni mu la daanee mooy fooram ci làmb te képp ku ne ci làmb xam na ko ba ngay bërëg moom waroon ngaa daw xeex bi wala booy xeex ak moom sax nga may ko distance ngir buy ñëw nga gis ko mais da nga jege dóor ko ku mu dal Maam gën laa jege si wuy si la ci xeex nga pakete ko daan ko jël bu amul benn werante vraiment ñu ngi félicité Maam Mor di ko wax ni Maam ci làmb nga bokk Mamor amul lu la mbër ëppalee ci làmb am nga taay am nga fit am nga bëre te bari nga mbooloo mbooloo mi nga indi démb arène nationale bett na ma ci yow mbooloo moomu musuma koo gis Mamor bu Faas mbooloo mi nga indi démb arène nationale musuma gis mbooloo moomu ànd ak Mamor gunge ko ci làmb kon ñu ngi lay féliciter bu baax a baax a baax mbokk yi di massawu Garga 2 Garga ñu ngi lay massawu li la dal ci làmb ji kenn yéenewula ko ñëw ba làmb bëgg a bëre te mënoo bëre ñu ngi lay massawu mbokk yi ñu ngi massawu Mama Lamine Mama nit ku baax Mama Lamine nit ku am taalibe Mama Lamine nit ku yaru Mama nit ku bari kersa Mama Lamine li la dal kenn yéenewula ko li la dal képp ku nekk ci làmb ànd na ak yow bokk ak yow naqar wi ak tiis bi nga xamante ni dal na la yaakaar naa ni mbokki ki génn àdduna ñu ngi leen massawu mu ñoom it ñu ngi leen massawu bu baax a baax a baax ñu leen baluwaat àq bu baax ci li jot a xew ndax yaakaar naa ne ñoom lu mette metti metti dal na leen am doom mu ànd ak mbër di ko jàppale di ko soutenir ba génnee fa àdduna te lépp bokk ci benn famille mbër mi metti na metti na ndax damaa ñeewantal maama Lamine metti na ndax dama yërëm maama li tax ma yërëm maama Lamine mooy ki def jëf ji ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay kam ko def daanaka ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay ndax famille la koo xam ne du jug ci yow di la guddigal di la bëccëgal kon mbir mi ci maama Lamine la gën a méttee mbokk yi ñu ngi leen ma masaw bu baax a baax a baax seex bi yaakaar naa ni bokk naa ci ñi ko mujjee jël ci open press Mama Lamine mbokk yi bi ma demee ci seex bi nga xamante ni moom la ndogal wi daal lii la ma seedeel ci Mama Lamine te ku ko waxoon ni bisu làmb ja du la ci fekk wala làmb ja du am du ko gëm dañ dem déglu seexu Mama Lamine bi lan la wax ci journée bi su ko defee ñu dellu si waat plateau bi ay ca ñu dem kan. Kole. kan mooy Mama kan mooy Mama. Kole. yaa yéen a ma seer ah. kan mooy Mama Lamine. Mama Lamine mooy Mama Lamine bi xam rek. mooy kan. seexu yàlla bi rek. mooy seexu yàlla. waaw. tey mu war a jëm ci bis bu rëy. boo xamante ni day laale Garga 2. dafa mel ni gis naa ni combat bi am na fu mu leen toll. seen diggante Garga 2 lan la. jàmm ak salaam. ak lu ñu yàlla boole. ñu war ko jëflante si fulla ak fayda ak ngor. waaw di ñaan nag suñu borom suturaal ñu may ñu ndam waaw loolu rek la. seen relation yéen ñaar damay gis des fois da lay sonal da dafa mel ni dafa am lu dox seen diggante cofeel ci seex en général ñaari seex dër lay doon Barça Real a. waaw waaw maa ngi moom noonu la demee nag Barça Real la. des fois ndeysaan ah des fois dañ koy dund lu muy yëg dañuy bokk bëgg-bëgg des duñ bokk ay bëgg-bëgg. waaw ah, mais saa yu waxtaanee dañuy jubóo waaw ah, moom moom nit la waa nit la wax dañ ñaan suñu borom kattanal ko suturaal ko may ko ndam bu kawe ñoram waaw loolu ñuy ñaan suñu borom yàlla na ko yàlla defal. neex naa jàpp ci gàll. ñun ah, ah ba ñëw seexu yàlla yi waaw ñun ay seexu suñu borom lañ waaw te ñun tey jii nii maanaam lépp dañ ko wekk suñu borom ñun amuñu sëriñ bu dul sëriñ Tuubaa Seex Ibra amuñu sëriñ ñun lépp si yàlla suñu borom lañ ko wekk. waaw parce que ay seexu sunu borom lañ seexu yàlla ba nekk bañ ne seexu yàlla yi sama simo di ko ñaanal bonheur réussite totale réussite totale laa koy ñaanal Garga 2 ndaanaan la kulu ndaanaan kenn war kenn mais ñu ñaan yàlla mi maye yàlla ñu yàlla may ndam si yàlla yow sama waay na yow jaamu si rek gis nga jaam ak pexeem yàlla ak dogalam ku may sa bopp nag lu la suñu borom may dangay jël ñu leen masaw ñoom ñaar ñëpp ñu ngi woon ci open press bi ñoom ñaar ñëpp ñu ngi doon dooleel Mama Lamine pour mu bëree Garga daan ko ñoom ñaar ñëpp looloo nekkoon seen bébét waaye nag ñun jeunesse bi nañu xoolaat suñu bopp nañ leen moytandiku ñu bari dëkk bi toj na réew mi jaxasoono xale yi ak mag ñi jigéen ñi ndaw ak jigéen bu mag ñëpp ñu ngi ci njàqare ndax ñàkk sécurité bi ci réew mi saa su li ñuy wax mooy saa su suñu bët xonqee ci état la ñuy daw mbokk yi ñu xam ni am na lu bokk ci lu dugg ci ñun te bokkul ci ñun mbokk yi Sénégal ay boroom xol yu rafet ñoo fi ne ay borom xol yu yaatu ñoo fi ne li dugg ci réew mi bay pousse jeunesse bi bay utub utub alal jaral leen ñuy faat seen moroom wala di bàyyi doomu aadama xëy wuti teraanga am ko di ñibbi këram nga kar ko rey ko ngir jël alalam loolu nekkatul neen déedéet eh, nekkatul neen waaye nag la kilifa ga doon wax rek jullit bu nekk bu la jant nattu tiimee ubbil néegu muñ dugg ca te xam ne suñu borom mooy seddale ñuy ngi baaluwaat àq ñëpp mbokk yi di baal àq ñëpp di ñaan yàlla suñu borom mi am jéggal yàlla suñu borom jéggal yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci mboolem réewu jullit yàlla musal ci seytaane ak pexeb noonu ak yàqu-yàqu ñi nga xamante ni dañoo dëng te dëngte bi nekk loo xamante ni lu dal la ci ñoom yàlla na leen suñu borom soppi